maaleykum salaam ñu ngi leen di fay tey jii nag ku ne xam na ni mooy journée bi ñu jagleel wàllu garab muy journée de l'arbre boo xam ni célébré nañ ko à l'échelle nationale mais également célébré nañ ko à l'échelle régional à Tambacounda à la gouvernance arbre parrain bi ren dafa jëm ci garabu guy baobab buy nag nekk ci diwaanu Tambacounda rawatina ci département bu Goudiri benn filière boo xam ni filière bu am solo la ñu ciy yëngu ci wàllum pëndaxu buy bi ci wàllum huile baobab bi ak yeneen i ferñeent yoo xam ne dafay soqeekoo ci buy bi ba ci sax li nga xam ne dañ koy nal ci xoox bi dañ koy def ràkkal xob yi dañ koy def lu jëm ci wàllub euh, li ñuy jëfandikoo ci ay ñamu cereek ay laalo yu mel noonu mu nekk donc benn euh, espèce boo xam ni daanaka buñ ko toppatoowee am na solo trop ci wàllu économie. mbas boobu sax am solo trop tey ñu war ci wax ndaxte ñi nga xam ne ñoo jiite expert naa xamle nañ ni. ci jamono ji seen ay commande yu bëri dafa tagatémbe seen liggéey xaw a sooxe li ko waral mooy jafe-jafe yi am ci feebaru mbas bi. xeetu jafe-jafe yi mooy jaay bi demeetul noonu euh, ñu ñuy jox buy itam wala xale yi di génnee buy bi actuellement nii ñu ngi ñuy woo ñu bëri ñu ngi ñuy woo yor buy mais mënuñ ko jaay ñun suñu bopp commande yu bëree bëri yu ñu yoroon annulé nañ ko. Euh, muy muy fii ci Dakar muy euh, Europe muy États-Unis muy Cap-Vert commande yu rëy rëy yu am solo mais annulé nañ ko euh, léegi la reprise bi am ndànk-ndànk mais ñu ngi ci gorlu ba ba xol nan la nan la ñuy def ba mën ci genn ndànk-ndànk mais mesure première yi mom moy yi mesure euh, mo am pour que banque bi vraiment dimbali ñu ba euh, du ñu teg benn benn coono euh, ñu ci ñu ci jaajëfal état bi di ci jaajëfal Oxfam bu baax a baax parce que moom mooy suñu partenaire principal ak yeneen partenaires yi nekk ci région yi ñu ngi leen di woo ñu gën a ñëw jàpp ci ci mbir mi maa ngi xalaat Padayer waaye FIDA waaye yeneen projet yi nga xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci région bi nañu ñëw jàpp ci mbir mi parce que pour mu pour mu gën a dem parce que bu ñu bëggee résultat bëgg lu lu baax dañuy dem fenn fi nga xam ne liggéey bu baax fal nekk ñu liggéey foofu bàyyi fa impact bu ëllëgee bu ñu état bi laajee ñu né waaw def nañu résultat bi nga xamni ni indi na changement ci communauté bi indi na changement ci emploi jeune bi indi na changement ci autonomisation des femmes ci loolu lañuy dox té yaakaar naa ni président loolu la wo ci nit ñi euh, autorités yi loolu lañu bëgg population bi loolu lañu bëgg c'est-à-dire économie bi dox économie bi doxee ñëpp am jamm et LBA ex CNCA la banque agricole japp na ci bu baaxa ba ak euh, partenariat bi ñu lëkkaloo ñun ak mom ak Oxfam ci programme bi ñu tuddee ECV ci ci banque bobu moo ñu jàppale ba nga xamni ne mi bi mu ñëwee ba ba indil ñu jafé jafe euh, banque bi ak ECV ak Oxfam dañu jappalé ba bor bi ñu warona am ñu téyé ko pousse bor bi mais ba paré tas ko ñaar. donc euh, di jaajëfal bu baax Amadou Diédhiou am support yi moo ñu jàppale ci walu tournage réalisation miroir Covid 19 ci diwaanu Tambacounda ñu daal nak doxantu ba ci inspection régionale des eaux et forêts bi nek ci commune bu Tambacounda fi lañ doon défé tay ji sen plateau. ngir miroir Covid xanaa di joxe dig daje fii ak beneen incha allah.